sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm vraiment suma waajur yi euh, ak sénégalais yi nga xamante ne vraiment kenn ku nekk bëgg nga sawaar si suñu détention bi euh, di wax ne mbir ma téye daal ñaari mbir la bi nga xamante ne euh, man mii si sama wàllu boobu vraiment su ma ko waxee nii dina la est-ce que la. benn bi dañ ma ne gis nañu da ngaa bëri groupe WhatsApp si sa numéro téléphone. mooy premier point bi ñu ma jàppee ma ne leen man Pastef laa bokk. du ma ko donc beneen bi mun ñu ne ma bu ñu ñëwee perquisition sama kër fekk nañ foofu ñaari gilet mm-hmm. gilet bi nga xamante ne effigie sagam man agent sagam la beneen gilet bi effigie mairie la mm-hmm. euh, ma bokk ci ñi gañee ci mairie Parcelles Assainies beneen bi ñu ne ma dañ fa fekk kagul bi nga xamante ne euh, moom lañ ngay demee manifestation ak euh, benn gant gant bi maa ngi moom laay sol su ma demee liggéey loolu lañ fekk foofu mhm. euh, ci loolu lañ ma jàppee ma ne leen gant yi c'est moom matériel bi nga xamante ne moom laay liggéey te aw ma ci lenn li nga xamante ne dinaa ko regretter te ñëpp xamee nañ ma ci lii mhm. donc man si ñaar yu lañ ma toppee le fait que gis nañ groupe WhatsApp parce que fi bëri nañ sama portable ak kagul bu ñu fekk sama sàmm ak euh, gilet bu sagam ak gilet bu mairie bi mhm. ak gant coupé loolu lañ ma jàppee. est-ce que takk der yi jéem nañ def ay investigation comme yow wax nga ne gardien nga te ñu bari xam nañ ci sécurité ngay liggéey ngir mën a dem ci maire bi wala dem ci sagam pour xool est-ce que yow élément nga buy liggéey foofu comme ni nga ko waxee. Euh, par rapport tamit euh, question bi euh, keroog bu ñu ma jàppee dam leen ne il faut appeler à la sagam d'abord ngeen xool yeen jour bu ngeen xamante ne am ngeen yaakaar ni man dem naa manifester. Euh, ñu woote au niveau de mon poste ñooñu naan la en tout cas daal Boubacar Badiane tey si suba moom moo wàcc te semaine bi yëpp moom moo liggéey léegi bu fekkoon yéen am ngeen jour bi nga xam ne leer na leen nii da ngeen ko gis si manifestation wax leen ñu ñun ñu vérifier suñu kayit bi mhm. mais ñu ne ñooñu seen yoon nekk si ñoom seen liggéey la ñuy def may la amul benn problème euh, noonu tamit la bàyyi mbir mi euh, ma delloo ko si suñu borom maa xam ne yàlla nii la dogalee mhm. ala kulli haal ma dem kaso rek kaso gi wax dëgg yàlla euh, maa ngi gërëma encore Macky Sall. ci nan. ndax Macky def na li nga xamante ne te keroog bu muy sangoo suuf du ko fàtte nday jàpp ay gor ay doomu jàmbur ñi nga xamante ne defuñu dara am ñi nga xamante ne manifestation kese lañu jàpp bi nga xamante ne article quatre-vingt moo ko reconnaître. bul jooy bul jooy dëgëral sa xol bul jooy bul jooy. et émotionnel. émotion euh, la peut-être xamaguñu soxna si ñëw di ko dalal waaye luñ ci mënti wax jàpp leen responsable la Pastef ca Parcelles Assainies yëkkati kàddu euh, fu ñu juumalee soxnaam la mhm, euh, mooy li nga xam ne moom lañu ñu gis ngóone jamono madame courage waaw moo ñëw noonu akulaat ko ñoom ñaar ñëpp ci nekk yaa ngi jooy émotion la mën nañ comprendre soxna si ñu ngi lay massawu voilà ñu ngi lay ñu ngi bu fekkee ne bëggoo feeñ nga may ko tuuti rek ñu la ko ñaan wala nga wax ci benn kàddu kaay ah, dañu pilees jigéen parce que xam nañu euh, euh, euh, kaso dafa metti te bu ñu gisee soxna ñu bari dañu abandonné seen ay jëkkër ci moment yu metti yi nan ko dundee salaamaaleykum maa bi ma amee famille bu ma soutenir surtout ku may liggéeyal moo ku may liggéeyal benn instant bu ma demee ba nar a xaaj moo may ba may soutenir sama famille mention spéciale te tey jii bu may amee sama jëkkër ba yàlla def tolof tolof moo nekk naa def ma bopp nan nga dundee moment boobu. moment boobu métti na. métti na mais à chaque fois su ma taxawee bu ma naree bàyyi sax sama yaay dara daf may encouragé waat wax ma wax ma wax yoo xamante ne dañuy siiwaat dina jàmm. merci beaucoup merci beaucoup ñu continuer un peu ci interview bi. mooy par rapport ak euh, article 80 bi nga xamante ne moom moo reconnaître consul euh, La, la, la loi de manifester. Mhm. soo amee lu la métti euh, nga wàcc dem manifester ñooñu yëpp jàpp leen indi leen fii euh, ci loolu euh, su ma waxee maa ngi gërëm Macky Sall parce que tey dafa permettre pour que tey ñun ñu wax na kaso bi li fa nekk tey umpuñu ni kaso di doxalee tamit umpuñu ni suñu magistrat yi ak juge yi di doxalee umpuñu nguur gi bi nguur bi fi nekk nu muy doxalee par rapport ak la personne de Ousmane Sonko ñun xam nañ ko tamit. moo tax côté boobu laa waxee maa ngi gërëm Macky Sall. je que tey jour la bi nga xamante ne mun ñu wax lépp mais dinañ ko tenk ci kaddu ni vraiment suñu euh, temps carcéral bu ñu def noonu métti na trop bu ma nee na ñun moom wax dëgg yàlla sant nañu yàlla mais njaboot bi nga bàyyi si biti ak ñeneen ñu ñuy déggee kaso nu mu mel. ñooñu la ñu gën a yërëm parce que ñooñu xamuñu exactement kaso Ndoumé mais ñun ñu fa nekk. am na lu ñu madame Badiane. madame Badiane ñu ngi nuyu nuyu sama internet ñëpp kontaan si yow ah euh, Saint-Valentin passé na tey borom kër yu génn ñu gis nga ñëw akolaat ko lan nga yëg. xanaa bànneex bànneex ndax weer yi metti woon na ci man torop mu guddi lëndëm mais terewul ma jàmm ba yàlla def tey jàmm xam nga tey jii bu nekkoon dafa metti taxaw fii mais alhamdulilah laay wax sant yàlla bu di gërëm tamit waa parti parce que vraiment euh, depuis bu ñu duggee si kaso bi ba tey bàyyi ñu benn yoon côté lekk bi côté bu nekk baa ngi jàpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ak képp ki nga xamante ne jàpp na si ak képp ki nga xamante ne wax na si tamit kaddu bu rafet bi nga xamante ne moo mun a boole Sénégal vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm. nga gëj gis sa soxna tey ñu ngi koy waxee ne bi ngay wax moom nga ko gis booba ak tey nan nga ko dundee ak tey bi nga ko gisee nan nga ko dundee aussi. Euh, vraiment tey moom euh, sentiment bi ma am tey vraiment euh, kontaan naa mais des naa sama njaboot laa bëgg a gis. Mhm. xëy na moom laa gis mais suma doom yi. da nga bàyyi woon naa njaboot. yu sew sew sew sew surtout kenn ki janvier bi la am deux ans. janvier bi la am deux ans kooku euh, jigéen la sama nawle la kooku kooku mooy sama kooku mooy bajaan nag. waaw kooku moom sama famille la. kooku surtout kooku laay kooku rek laay toog di xalaat euh, di wax ne xam naa peut tey moom euh, bu soobee yàlla xam naa yàlla dina ko def tamit ma mën a recouvrer vraiment sama doom yi ñu mun a toog waxtaan en famille xamal leen vraiment lu tuuti ci àdduna euh, ñoom tamit buñ ma gisee yaakaar naa dinañ xaw a kontaan tamit parce que gëj nañ ma dañ maa gëj a gis euh, dernier jour bi ñu may gis dama man seulement monté woon gar wàcc si suba ñu ñëw fekk ma foofu jàpp ma heureusement fekk na sama doom yi sañ kenn ku nekk dem na sa liggéey mais bu fekkoon loolu sama kanam doom yi lañ ma waroon a jàpp jàppewuñu ma sax ci manifestation mhm. pour ma leeral jàppewuñu ma si manifestation kër lañ ma fekk jàpp ma kër sama kër lañ ma fekk jàpp ma parce que dañu am peut-être yàqin ne le maire Jamil Sané mii nga xamante ne man maa ci ci wàllu sécurité au la mairie am na li nga xamante ne lien bi nga xamante ne man ak moom war nañ ko mën a bokk te yàlla xam na ne amul lenn li nga xamante ne lu ñaaw li nga xamante ne am na sama diggante ak maire Jamil Sané Jamil Sané tamit muy journaliste muy képp kuy yëngu ci wàllu journalisme am na ne Jamil Sané du nitu média depuis bu jëlee ba maire yi ba tey am na ñi nga xam ne bëgg nañu xam kan mooy Jamil Sané mais mënuñu ko xam donc mënoo nekk ak Jamil Sané di am ay pressentiment yi nga xamante ne eh, dina ñaaw surtout yi nga xamante ne day yàq Sénégal Sénégal ñun bu ñu ko defaroon duñ ko yàq mais bu dee dañuy étiqueter ni ñi étiqueter ni ñi naan ñii ñoo yàq kat dëkk bi ba pare encore sas à la sorcière soxna si am na ñi nga xam ne dañ leen jàpp noo sant Badiane noo sant Diatta ñu ngi fii rek kon loolu da nga koy dëggal. non dama koy dëggal. Mhm. ñu ngi fii li ma xam la moo tax ma ne la. Mhm. Macky Sall ñu ngi koy gërëm ba pare nañu wax lépp nu mu demee. Mhm. noo tudd noo sant Badiane ñu jàpp la noo tudd sant Sagna ñu jàpp la. mu ngi fii am na ay nit ñu xam la vraiment loolu Sénégal warul doxee noonu. di wane ni xeet bi warul mun a nekk président xeet bi mu war a nekk président. loolu kay maa ngi koy may lancer message à tous les acteurs politiques. réew mi ñun ñoo ko moom. bu population bi àndee ni Balante moo war a nekk président. na ñëpp nangu ni Balante moo war a nekk présent mais di jéem a stigmatiser benn religion wala benn euh, ethnie. vraiment vraiment vraiment ñu ñu ngi lay sant merci beaucoup allez merci jërëjëf euh, mu nekkoon ni nga ko waxee ku xam ne tey jii muy rek